asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di baax di leen jaar bàyyi leen ci jàmm macha allah euh, j'espère bien que yéen a jàmm ñu leen baal àq yi ñëpp di leen baal àq yéen yàlla fekk loo ay déwén yu bëri bëri bëri nangul ñu suñu jàmm yàlla yëpp. Euh, tey nag benn vidéo lañ bëgg indi boo xam ni euh, gis nga ni maa ngi ci biir application MyFree bi MyFree bi nag am na lu ñu ci doon expliqué jamono yële muy bon li ñu wax leeral. mooy bi nii euh, du bi euh, voilà bi ñuy wax leeral bii nii dafa am benn ki bi ñuy wax leeral boo xam ne moo point sargal ci orange ñooy am léegi nag euh, loolu dafa am solo quoi expliqué woon nañ ni muy demee ak li nga jigee léegi tey nag dañu atteindre li nga xam ne si dina la permettre nga am yenn Idimax yi xaaral ñu accéder ci nga xool léegi boo duggee da ngay ñëw ci voir ji ni boo duggee voir nga xool lii nii gis nga man am naa cent 1803 point te ñu ngi laaj mille cent 1150 1350 points donc léegi kii yaa ngi ni forfait yaa ngi ni Idimax forfait Teral Tawfekh pass internet Buña man nag bii laa bëgg a jël bii xaaral ma dugg boo cliquer dugg li la lay génneel daf lay wax ni la euh, ak point yi nga am nii cent cinquante point yi nii maanaam lii point yi nga am nii mille huit cent point hmm. mën nga ci dugal euh, benn kii benn ligne boo xam ne si trente benn ligne boo xam ne si 30 jours lay doon mu ngi nii 30 jours di ci am 12 euh, giga 12 virgule virgule 5 giga di nga ci am di nga ci am 500 SMS di nga ci am 1400 cent 1400 appels yi 1000 1000 yi 1000 minutes yi vers free la cent minutes yi pour tout les réseaux la boo dikkee fii 700 minutes yi nii. bu dee 700 point yi la lii nga ci mën am waaye mën nañu accéder comme dañoo bëgg a jënd moo directement points yi ñu bëgg mën nañ jël bii nii rek bu acheter bii ñu def acheter mu waxal ñu gis nga détail yaa ngi nii Idimax max nga détail yaa ngi nii gis nga affaire bi mi ngi nii euh, léegi soo bësee acheté lii la lay génneel daf lay génneel acheté Ilimax euh, mille mille sept cent cinquante point validité trente jours maanaam trente jours lay euh, durer léegi di nga am quatre cent minutes appel en totalité léegi kii di nga am mille mille minutes mi nga mille minutes euh, vers free en quatre cent minutes tous les régions comme détail ba rek moom la lay joxal daal na payer avec le point Teral léegi da ngay bës da ngay ñëw fii nga bës confirmé nga bës euh, confirmé nga xool nga bës confirmé patiente ko xam lan la ñuy indil en tout cas affaire bu neex la bu solo la parce que euh, mais nag xam naa ni ci jaaykat yi euh, crédit yi jaaykat yi seddoo yi wala su fekk ngay jënd crédit lu bëri nga nga moytu ligne yi euh, koo dem di jënd ci moom crédit su fekkee da ngaa soxla ligne nga dugal easy dugal ko sa bopp lépp loo soxla rek nga dugal easy dugal ko sa bopp te moytu ma yi nga xam ni jaaykat bi dafa koy dugalee ci téléphone am directement yow ngay jënd easy daal easy nga xam ne isi cinquante franc yooyu yooyu jënd benn point la xam nga loolu dafa gaaw a bëri gis nga léegi euh, dugg na la confirmé gis nga euh, Ilimax 750 point 700 montant 750 point sama numéro 345 dafa point teral léegi hmm, am na 12 virgule ak 1000 minutes appel vers euh, free ak 400 minutes appel vers tout réseau euh, durant un mois durant un mois fii ba weer wi jeex duñ ko daggee libre na maa xam ni ma koy utiliser hmm. aywa yaakaar naa am na solo trop trop trop trop hmm. su fekkee forfait bi nga soxla noonu la bu su fekkee nag da nga soxla euh, kii bi internet bi nga xam ni yow connexion bi rek moo la yitte la ngay ñëw fii boo dikkee fii nga cliquer ci kawam boo ci kawam cliquer ci kawam mu génne la lii gis nga euh, ak euh, voilà yi ñooy benn fan yi yii yëpp ñooy benn fan léegi mën nga ñëw ci 30 jours yi directement ba léegi 30 jours yi gis nga cent points mooy nekk 35 giga 1750 euh, mooy nekk 17 giga mooy commande bi ma dugg léegi su fekkoon bëgguma ko dugg forfait dama ko bëggoon a dugg connexion internet rek kese kese kese dinaa ci am 17 giga 17 giga yoo xam ne si 30 euh, jours lay valable validité bi 30 jours la voilà kon affaire bu am solo la quoi loolu moo nekkoon vidéo bi di leen jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum.